Música ñi nga xamante ne moom mooy la scène des happy with happy people ngeen ànd ak ki nga xam ne moom mooy Mado Caramel xale bi nga xamante ne fu mu naa leen ko a dafa xew waaw dëgg nee nag ñi ngi fi nga xamante ne moom mooy si fi ki nga xamante ne mooy doomu fukki penc ak ñaari muy Momo Dieng doomu Bargny gi doomu Yoff doomu Wakaam doomu doomu Tëngéej doomu fépp daal ñu fekk si ko fii nag nga xam ne mooy tey Cissés tey moom moo dafa nar a wàcca ñaar tara du Signor nuyu naa la. fay naa leen. ci loo ngi sant bu baax. Signor mu mel gis nga gën a jongoma ay waay bàyyi leen tooñ ñoo ngi nii rek di jéem rek. ah macha allah ñu gis nga wér ni teint bi nii nii wax gars yi lu ay waay karité laay di woo. karité Guinée Conakry bi. mais tàngaay bi soo ko déglu. non non karité Guinée dafa baax xam ay Pël Fuuta ak ay Balanta. waa dañuy sant yàlla mooy sant sama sëriñ sëriñ Saliou di jàppale ñëpp parce que comme ñun ay polyvalent te ay xale lañ bëgg nañ li ñuy def am nañu amour bi man artiste ma woo dama lay jouer ñoom ñëpp laa yemale samay papa samay xarit lañ samay samay am di jàmm lañ daal ku woo rek dama lay jouer parce que looloo tax may liggéey. lan waaw sant yàlla lii lañ naan koo xamul noo ko de nim la defa tax te tey liggéey rek moo waral lii boo liggéey rek am résultat yàlla du neenal jaamam te mën na li muy def am na yar yëg na doomu aadama te macha allah bi nekk gàmm bi nga xam ne samay xarle ma ak ñoom dafay yàgg. donc il le mérite mu am lii xam te dañuy ñaan yàlla chaque année rek mu di ko def. kon Momo daal lay waaw macha allah artistes dañuy dem kenn du leen téye ndax. Momo la ko téye. waa Dieng Saala way neer day nekk ci kanam incha allah <laughs> non la te ñun ñëpp nañ ne ci kanam rek. <laughs> Tangone nuyu naa la. maa ngay fay. Tangone tu es macha allah. merci merci. yaa tey duma la laaj lan moo waral sa ci bés bi. waaw waaw sama doom sama doom moo xewle donc tey mu nekk euh, quand euh, organisation bi gën a mag depuis bi ñu ko yoree ba tey donc ñu rafetlu présence public bi tey moom nit ñi dinañ dégg lu lu lu lu rëy lu rëy dinañ ko dégg. ah situation nu mu ndaw da fay metti d'autant plus que ñu indi ko fii si CES pour la première fois donc challenge le pour mom challenge le pour nous par rapport ak mom donc vraiment c'est un garçon qui est très talentueux c'est un très grand chanteur très grand musicien donc ñu am yakar ci mom bu baax a baax a baax. ko mo djé Momo Dieng macha allah dafa am encadrement bu baax am mën naa ne label bu ma bu nekk si ginnaaw naka ngeen di dundé ak moom moo gën waaw nu ñuy dund ak moom rek ñun leen koy gën a ñaax rek mu góor gën a góorgóorlu ñun tamit de notre lépp lu nu war a koy def pour euh, liggéey bi continuer bu baax euh, donc euh, moom na na ko ci teg rek bu ko ci tegee rek yàlla suñu borom ne ko defal sutura. tey kontaan ngeen. kontaan noonu torop torop torop. vraiment petit solo. Alhamdulillah. ne nii tey ku nekk loo jàpp rek da koy bàyyi yaru na mun na li muy def respecté na ñëpp bu amee programme téléphone lay jël woo ñëpp donc tey mu gis la rek nga dem ñibbi sax da baax te bu ñuy seen dañ koy encouragé ba pare ñun nag dañu ñëw am lu ñuy nettali rajo da ci am solo waaw. gis ne moom moo sànq ba tey nit ñu koy seedeel ne ku yaru la bu mel ne tey yar ci xale mën na laa àggloo pour que di ko ci artiste parce que artiste bu yar da koy xam ci ni muy yéege sur scène ni muy comporté woo ci ay interview am waaye tamit ci dans la vie de tous les jours donc loolu tey dañ ko ciy sant yàlla di ko wax di ko gën a encouragé pour mu continuer ci lancer boobu artiste la mun na li muy def waaye voilà respecté na ñëpp daal macha allah. kon ñaata su ma la déggee bu baax a baax yar baax na trop si artiste dafa baax ci ñëpp waxantuma laak na ci artiste parce que artiste yow da bëgg nit ñi di la bëgg comme ñun ñuy liggéey à la télé ak ñuy liggéey rajo da bëgg nit ñi di la bëgg donc nit ñi am na looy def rek dañ lay xeeb te dañ lay bàyyi donc yaru dafa am solo ci lépp loo mën di gis rawatina ci artiste rawatina ñu ndaw ñi. maa beaucoup merci beaucoup. waaye ñëw taw ci bisu moomoo bi rek sunu mag laa xam nga rek xamante bu yàgg daal ko ci ba grand di kontaan ci moom daal yàlla may ko gudd fan ak li mel. waaye yàgg nañ yàgg nañ. waaw parce que man ak rakkam bi ay xarit lañ man ak Sabel ñooy ànd nenne ak ñoom Awa ñëpp ay xarit lañ moo tax ñu teew ci. waaw. sama xol sedd na ndax kontaan nañu daf ci yàgg dafa bëgg li muy def ñun ñëpp a kontaan macha allah ñëpp ko yéene. merci beaucoup Wah, dëggal maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna moom moom c'est mon frère et c'est très normal que ma ñëw loolu rek la. si di tamit euh, ñu dégg récemment ay rumeurs yoo xamante ni Mame Gor Diazaka si boppam moo génn wax ni. maanaam waa Prince Art dañuy lekk seen xaalis yi gisuñu benn artiste Prince Art si di yéen la dañ leen a la wala. ah mais man déjà da ngaa jum ci communication bi ndax man euh, labelu Prince dafa fekk man man ak Prince ñoo nday ak sama papa la. que dañ may invité man je suis là pour tout le monde ku ma invité rek ma ñëw. kon man mënuñu ma génne fenn man pour ñëpp la Sidy Sénégal la. man sidi job bu 5 étoiles la dama am sama groupe ak sama label bu tudd 5 étoiles mais je suis là pour tout le monde ku ma invité ma ñew am tamit ñu wax naan dama ko ah ah am ñu né yow dal wal sék dafa melni ne neexu la sidi wax ñu ci dëgg je l'aime de tout mon cœur. Ton frère boobu. mais mais mais mais tant, mais tant, bi jeex na. kooku sama frère la. sama frère là, te ñoo bokk ndey ak merci beaucoup damay joué. non kontaan naa.

maa ngi jot sama xaalis. jot sama waaw. kon ku jot moom. man daa xam naa maa ngi bu répartition jotee daal bu demee dinañ ma fay. mais Aïda ñu ngi lay tamit laay nam na ne. léegi rek incha rabbi. bu sottee rek ñëpp kontaan. surprise nga bu neexee yàlla. waaw yàlla